dëgg la dinañu fa yàgga waaw waaye li gën a am maanaa moo di ñu ñëw jaanook suñuy borom te ñaan ko mbaal dinañu tàmm di woy am fi waxtu añu gën a lool téeméeri at ci këru baakaarkat bu ñu amee waxtu ak borom bi ci bés boobu yàlla dina xëpp yiwam ak ci ñun yàlla dinañu sang ak barkeem dinañu raga ba ñu set wëcc te fuufit ci ñun xool yu ees ak xel yu ees xool yu ees ak xel yu ees ndax ñu mun koo séede xool yu ees ak xel yu ees ndax ñu mun a dundee cofeelam te it mun koo éenee suñuy i morom ci suñuy dund ci àdduna bundoo kerceen sumay mbokk yi di leen a séntu ci bés boobu ooyu ñu fa mag yi rek oo ne ñu fa ñëpp ñi di uyu ci turu kerceen mag ak ndaw góor ak jigéen maaget ak ndaw yi ñëpp lañu fa oo ñëpp képp ki nga xam ne yëg nga sa néew doole ñëwal te ñaan yàlla mbaal te gumal ne ngir ne ci jamono koor la ñoo fekk lépp ñaan yàlla ci bés boobu yàlla dina la ko may yàlla dina la sàng ak cofeelam yàlla dina la ubbil yoonu jàmm yoonu barke yoonu tekki bu ndóg nañu ko jëfu ngir ne bés bi moo di suñu bésu mucc jërë leen jëf sumay mbokk yi Sunday Magazine, viewers watching out there. Today we have some Christians, uh, our brothers Christians from the Holy Cross, Brusubi. They are here to tell us about their parish feast, which is on the 3rd of February. You are all welcome to the program. Thank you. Um, Mr. Thomas, will you please tell us how will the parish feast um, go on? Yes, um, thank you. Um, we are here as a um, planning organizing committee. Uh, we're going to have our feast on the 3rd of February. It's going to be the 8th anniversary. And we want to celebrate it in grand style. So what we're going to do is we're going to have a mass, a grand mass, and after the mass, we're going to have food and drinks, especially what you say we're going to and we are inviting all Christians all our neighbors, old and young, youths. We are also inviting Muslims to come to our feast. We're going to have celebration, we're going to have music. Um, the mass is starting at 10 and we'll be there up to 6 o'clock in the evening. Thank you. Uh, John Mendy, um, pour mbokk yoo xamante ne ñu ngi seetaan léegi paris-fils bi naka la mooy demee bés boobu. waaw jërëjëf <coughs> jàmm ngeen fanaan moom mbokkaay si bi ñun waa Holy Cross Church ca Brusque bi ñoo leen fi nekkal tey ndax waxtaan ak yéen ci mbiri church fees bu ñoo dimbal si nii church fees bi nag bi mooy nekk suñ juróom-ñetteeli church fees ah, yu ñoo celebrate ba pare ren ko amee. ci ñetti fan ci weeri février buy ñëw nii ah, church feast bi nag dañ ko bëgg a def mu nekk loo xam ne dafa humba church feast bi na dooree ak mees ah, mees bi mu ngi doore ca fukki waxtu ak genn naaw si mees bi nag gannaaw mees bi nañ am ay lekka yu ñoo jaay lekka boo xalaat rek nañ fa am grill mbaam nañ fa am mbaxal mbaxali mbaam nañ fa am naan boo xalaat nañ ko am foofu. waaw lépp lu leen soxla rek. na fa nekk kenn warut a toog ak si këram. ñëpp a dem foofu noonu. waaw waaw bu leen deewoo sax ñëpp nañ ñëw rek. nañ dafa amal lu nekk. waaw pare lu ñu am tam si church fees bi tam ñu ngi ko dugal si dañ bugg a tabax benn bitik si church bi ak benn office tam si church bi waaw. jërëjëf bi naka la mooy pour suñu mbokki njaago yoo xamante ne ñu ngi seetaan programme Ah, banyan kriston bulin tu ndo ulin bos banyan holy cross unda bitare fu pulentin unda ka pro ofeston, wimme unda unda chingwano kwas pikal kro festa yek wime unda witir banyam ling tu buka bi, pu matir uh, unumant achingu nungwant di pli pualo pli putabantin di wano unda nyan ba ci bayitun ling tu buka jawi mesa ci ngoron tajari du metare munda ñaan bakal ling tubu ka jay ba ñaan paris ling tu ba ñaan cooj gambia ling tubu ka baañ bi dal bu ke matir euh, u festa undu kuroy undu ko ab tu me koy undu kuroy tu ka pamanan koy me itigi cumal di di icoyi cumal ka kuwap euh, butik ikoy medal ngukongro gris yangi megi nyaka fir pusapile nubini welpol so ka nyan bayti njab ling tu bu ka jay buke matiri nyaru festa on kroin tom uh, john bendi mm. um, nga yigal ñu ko si karoninka bon dégguma karoninka waaye defe naa ne <laughs> waxtaan bi daal dina mun a gën dem su fekkee ne mbokk yoo xamante ne ñu ngi diggal karoninka ñu mun a topp ci sam waaw man tam um, dégguma karoninka noonu waaye na try daal mm. uh, alu pakanam kalonia uh, titajota titi holy cross church nu ukeyile fiyoy you know ukeyo ukeyile pour kutna lu ti kuye nange etaku ti church eto ni eme bruce bi nga holy cross church uni yufu taka wawa no sok um, church feast church feast ye efe ye no kuye ya program e fakat ule fule pamaka bulung cho kapufuli um, dimasia kabuke nuhani ya bulung chau nuhani ya bulung chau wahonu take toko nu nu nu nu pochino lawo na bulung chau so nublong chau uyonkala yonkala lu alu christian ya eyem eh, ya tigambe ya blum chau katini ke dimasia nuhania nantonol eh Yo, timba timba. <laughs> timba timba. To Mr. Thomas, um, do you have any last word to give uh, to the viewers watching out? Um, yes. Um, what we are appealing is that we want everybody to come. Uh, we've invited a lot of guests. Let them come and give um, in great number because we want to do, there's a complex building that we want to, a shop that we want to raise, and that needs money. So we are pleading people to come with heavy envelopes. Thank you. Welcome back to Kadu Dundagi from the Roman Catholic Diocese of Banjul. My name is Father Peter Lopez. As part of marking the year of faith, our Holy Father Pope Benedict XVI has also asked us to look at the Mass and if you've been following this program, you realize that for the past five Sundays, we've been uh, looking at the parts, the different parts of the Mass. And last week, Sunday, we looked at the creed, the importance of the creed. And there we realized that the creed stands in between the liturgy of the Word and the liturgy of the Eucharist. And today we move on to look at the offertory. You know, when we talk about offertory, as you will hear very shortly, we also talk of ourselves because when I go to Mass, I'm offering myself to God. But we offer ourselves to God in different domains, in different ways. And Father Gabese has been going in detail to look at the offertory, which we always uh, do during the celebration of the Eucharist. jërëjëf Fada léegi eh, ni nga ko waxee rafet na ne eh, seesu ngom bi mu ci digg ñaari wàll yi la léegi nga gis ne bu jeexee ñu door di dem ci taabul yi njiibale xam mm-hmm. nga jàngal nga ñu ne bële taabul bi mooy pour déglu kaadu yàlla déglu nañ kaddu yàlla ba noppi ñoo wax liñ gom te liñ gom sa niñ ko waxee mu ngaa delloo suñu xel ñoo def ci ci taabul bi la buñ ñu door di lal di pareas taabul bi. Mm-hmm. waaw nga ne pareas googu daa ca lal ba la dooree nañ la fàttaliku ne ci suñu jàngu yi di nga gis ne niñ ko war a defee moo di ne njéebale bi dafa jógee ci gannaaw. di ñëw loolu lim sama ndaay mooy nga ñun ñëpp ñi fi daje lii la ñoo jébale. te eh, la nga xam ne moom la ñu jàng bi wax mooy la ci war a ne mooy mbuuru ak biñ lan moo waral mburu ak biñ ne loolu ci cosaan la xam nga léegi mel ni su demee restaurant ah di nga am li ngaa lekka waaye dinañ jël mburu bi ñu tegee ko boor mm, waaw waaye lii du mosantu jamono jooju mbuuru doon na loo xam ne moom nga di lekka dafa naroon ñun ñu lekkee maalo noonu lañ doon lekkee eh, eh, mburu mu doon ne nguur doon na li nga xam ne dafa dundal yaram dafa nara pour ñun maalo bi mooy dundal suñu yaram ngir ne maalo lañ xam waxuma ne duñ mën a lekk yeneen waaye su fekkee ne yow eh, fii nga ju eh, juddoo fii nga miin ñàkk a lekk maalo ah, dina la gëteen ah so nga gis ne fi nekk nii loolu la woon mbuur bi noonu la léegi su fekkee ne lii mooy dundal yaram ah mbuuru bi di gis ne mburu bi ak biiñ bi mburu bi du jékki-jékki rek naka mburu dafa dooree ci foriñ foriñ da nga ko ji dafa nekk sa ñaxa sa liggéey loxo ah biñ bi tamit noonu da nga ko ji sa liggéeyu loxo looloo tax ndox mi bokk ci li nga xam ne da ko war a indiwaale dañ ne mburu ak biñ la ngaa jébbal